Sehingga jalan Penyemekana Penyemekana Penyemekana abonné wu ci seen youtube bu ñambe tv na station bi la fofu nga abonné wu ndax ngay am vidéo yi duggal ngi ndokel kulluhum ku yalla até mu tew ci suñu di ndokel di bu baax sang bu tedd bi nga mo te nekk fi ba léegi di naa Cheikh Souleymane Niane nga xam ne moo def fii ñu toog tey li nu fiy wax waaye ay bërëb yoo xam ne yu fasantikoo la waaye yu ute moo fa defit la fa ne yar ay jaam ñu taxaw fenn fu nekk ci réew mi di def liggey bo xamne aduna si yep ño ci wara tek sen beut kenn ci ñooñu di kii mu samp Gossas di Cheikh Bamba Ñing di suñu wolere ci yalla di kuñu andal ci sayer di kuñu andal ci batin ndax amana mën nañ tok sayeratan sax baña degante waye ca kaw mom yàllaa ko moom te la la pare na moo tax mënuma koo ñàkka nettali ñi bokk ci moom ak ñi féete ci man boo ñëwee dakaar amuñu uj uute am doo leen xàmmee ñépp ñooy jaxasoo ànd te loolu ci kaw la jóge koo ñëw ci suuf bi ma agsee matul une minute li wax ak man tàmbalee tuur xewal ci lum tayut ndax xol du tricher loolu man it aj ma fu yéeme waaye la waral loolu yépp mooy liggéey bu rëy bi nga xam si war naa nekk ci kaw suuf tey liggéey bu màgg bu sell bu tedd bi nga xam ne moom lañ jëlee ci sunu sang te war koo wéyale fépp ci àdduna ndax ñépp ci war a jëriñu waaye ñëpp war a xam lan la ñu expliquer leen ko ci seen xel ci degré boo xam ne képp ku ko dégg danga xam ne ñii yàquwuñu ñii fowuñu te la wax it xam nañ ko ndax du doon kàddu bu tegu ci bakkan mooy taggante du far du parparloo du waxu ja koo xam ne jaayit la yi tamit ndax lépp lu baax lépp lu baax lislaam dafa ko bëgg te lislaam dafa doon diggante jaam ak boroomam gannaaw ba jaam boobu ruuxam duggee ci jëmm nag dafa amati distance spirituelle soriwu la nag waaye dafa am distance boo xam ne yàgg sa boroom moo fay ne ci ci yow ci sa xam-xamu bopp donte mu ngi ànd ak yow saa su nekk muy umpale ga nga ko umpale nga soxla koo xam ne daf lay dimbali ci loola nga soxla koo xam ne daf lay yéegi ci loolu te sunu dëkk bii di senegal yàlla defal na leen ci tawféex bu rëy waaye ñun dese nañ cee jëriñu nag ndax am nañ kilifa yu ko mat am nañ kilifa yu bëgg yàlla am na ñuy wax yàlla fu ñu toog di soññ taalibe yi ci pas-pas di leen soññ ci leer di leen dimbali ba seen pas-pas boobu mbooleem taalibe daf koy topp ak seen xaal googu noonu motul ñaari fan bi sëñ xal Basiir diglé tuddu baatub la ilaha illallah ndax mom xamna la tax mu wax ko ndax ku ci xam la ndax bani dal ci mom bobu sax toogagut khalifa kon lépp luñ fa wax rek bu dee as néewit xam nañ ci dara lan mo tax mu digle tuddu batub la ilaha illallah dafa namal jam ñi yiw daf leen namal ñu bax aduna ak alaxira ndax tollu nañ fo xamné luddul batub la ilaha illallah bi seera dan dund mu régler problème yi nañ wax nit ñi ne kay inna salata tanha anil fashai wal munkar walil zikrullahu akbar julli baxna day dindi ñaawteef ak luñu sip waye gis nañ ne nit ñi ñu ngi julli waaye ñaawteef ak lu ñu si dañul ñu ne kon am na fu problème bi ne ñu war ko liññati expliqué expliqué ko jaam ñi gis nañu ne koor lu baax la yàlla du digle lu baaxut kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala lazina min qablik laalakum tattaqun mbir moo xam ne da ciy jëlee ragal yàlla du bon waaye yow mi ci jëlee ñeme yàlla nag yow la ñuy waxal pour ñu xam lan la Cheikh Moussa indi pour ñu xam jëm ji fi jóge lan la leen lan la leen ñëw présenter ci ndax jotay mom jotay la ñaata jotay nga def ci aduna bari na ñaata jotay nga fekke yàggu dara mom serigne Muntaxa Al basir bimu mu ko koo daaru Cissé ci ziar bi mujj lam wax cheikh bamba ngeen mu koy netal fekk na fi jaamu yalla, fekk na fi xam yalla lam daan wër daal fekk na ko fa te moy l'islam te moy yëkëti tankam bu sell ba ñëw kon loolu ak soññe la ak leeral képp ko xamné tudé nga sa bop al murid nga xamné ki jité loolu lepp te mat ko ndax ko mat rek mo nan téye leen ilaha illallah mo nan xam len yalla moo naan pasteefu leen moo naan def leen nii def leen naa te lépp jublu mbaax kon ñoom dimbali nañ ku nekk ci sa ci ci ci compréhension nga mën a dem dimbali ku nga jaamu ji yàlla waaye nga liggéeyal yàlla yi tamit ndax bërëb boo xam ne yàllaa ko moom bërëb yépp nag yàlla leen moom waaye boo nee lii dañ ko ko askanale ku ca def dara rek ci kama la wax ci maqaama yalla motax muy def ku ca def dara yalla motax muy def bo demé ci dimension yalla nak yalla am yow nga ñak day dagan bo demé ci dimension yalla jox yalla ba deseloo dara jéxal tak tok amo dara jox yalla day dagan té da ngay am nak, waaye dafa muñ woon moom nga fay fekk jaam ñu dajale seen alal joxe ko te yàlla moo tax boo xiifee kay baax na ah yàlla tax di saxaaba yi dañ doon takk seen biir yi xeer di xarel yàlla te yàlla képp a taxoon ku jëf nag te yàlla taxut sa jëf jooju neen la loolu moom dëgg la amul sikk waaye kuy jëf te yàlla képp moo tax booy dagg sa yàpp yaram bi di ko joxe ci yàlla doyut doyut de kon lii mooy mbir mi waaye nanu xam ne wa ma xalaqtul jinna wal ins illa li Allah il n'a créé les djinns et les hommes rien que pour qu'ils adorent Allah yàlla bindu fi ken du jinne du nit lu duhut muy jamu yàlla ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yutqimun du sa dundal du sa alal Lo xamne si sa jaamu gogu yalla daf ko ci gëstu ndax lam la bindee wax na la ko waaye munoo koo jaamu mukk te xamo yalla tarafuni qabla an tabuduni fa illam ya'rifuni fa kayfa ta'buduni connaissez Allah avant d'adorer Allah si vous ne connaissez pas Allah vous pourrez pas adorer Allah So xamul yalla munoo jaamu yalla bu doon ci règlement la dañ la naan c'est interdit mënul nekk léegi nag xam-xam boobu nga xam ne mooy xam borom bi ndax léeg-léeg ñu nax la ci xel ba bu waxee yenn baat ci arab rek wolof bi génnee na boppam jàpp ne loolu benn wax bu ko dépassé la moom bokkul ci maa ngi lay yëgal ne nit mën naa weex tàll dëkk ci pays naar bi gën a kawe sol manto naar yi ba nuroog moom di ko làkk comme ni muy naanee ndox mi te nga gën ko ki gën ci nit ñi mooy ki gën a ragal yàlla ci nit ñi ragal yàlla nag man xamaguma ban làkk lañ koy waxe ragal yàlla ci làkk bu nekk la mën a feeñ soose bi mën naa gën a ragal yàlla pël bi pël bi mën na koo gën a def joolaa bi waaye waaye séeréer bi moom xam naa moo koy gën a def ñëpp wax dëgg yàlla waaye nag naar bi sax séeréer bi mën na ko koo gën a def la ma ci jublu mooy déglul la Cheikh Moussa Ka wax li tax woy wii wolof tama dégg yaaram dama nar gaa yi jàngul xam boroomam dama nam gaa yi jàngul xam boroomam lan mooy xam yàlla yaaram mooy ay arab mu ne li tax woy wii wolof dama dégg yaaram dama nar gaa yi jàngul xam boroomam ma dolli ci as néew as néew li sëñ bàmba lañ ko woyal ca woy woowu ba tey da daan fekk murit bu dof bu tilim ferut baa ku ferut baa boo bindee turam ci arab du ko xam mu ne sëñ Bamba fut ko ba mu set tofal mbooloom boromam wal léegi ku toog toogal ci càlla la kooku ne yaa nga yëngu war ngaa xam secret bi ngay làmboo ba def ko cib taalibe ba mu jëriñu moo ki mokkam li Seex Bàmba di yëngal fii di ko wax xam-xam la ci Sëriñ Tuubaa képp lañ ko jëlee Seex Musaa dafa ne maa ngi dégg ñu naan maa ngi jégg ñu naan Seex Musaa dey xam-xamam bii mu ne xanaa dama fekk mun na nëbbu rek yàlla woon ma ko mu ne awma wasi la bu dul Bàmba Mune bamba kep moy suma sang moma sang bama set wit cheikh moussa seen jàmme daaru ca salu mo wax lol nan la ko bamba sangé ba set ci ban anam ndax dañ ko waxal ne cheikh bamba yow ya di mbamulan kusobu dotul ñani nan kon ku mar rek xamal ne newoo ci yoon bi ku mar nak ku dootul ñaani naan ku mandi day jëndaale teen da ngay mandi am teen sa kaas di mandil xarnu bi sa kaas yi fi mu toll nii mooy mandil xarnu bi kaas yooyu nag jugut fi kaas yooyu mu ngi fi ba léegi lañ cay xelli du ndoxu saayir bi maa ul xay bi wa maa xayaat wa maa ul kawsara ñetti ndox yi nga xam ne moo lay jox xam-xam jox la leer jox la dund ñu koy fekk ci kalimatu baatub laa ilaha illa allahu lu tax ñu koy fekk ci baatu laa ilaha illallah ndax Cheikh Moussa dafa ne sa xam nga sëñ Bamba dafa bind ne li nga xam ne mooy baatub laa ilaha illallah wa nafsu laa ilaha illallah muhammadu man arsalawal mawla sala alayhi llahu suma salima wa alihi wa sahbihi wal kurama mu ne afdalu moo gën maa natahu wa yaskuru moom baatub laa ilaha illallah moo gën lépp lu nuy xalam cim xel mbaa ñu koy wax ci làmmiñ fa kullu man képp koo xam ne ankarahu weddina baatub laa ilaha illallah fa yaxsiru dagan nañu rendi la te loolu aaya la doog a ñëw nekk bayit akbaru indallahi wa fitnatu akbaru min alxatili l'association est plus grand que le meurtre alquran dafa saxal ne bokkaale yàlla mooy nga génn ci taw tawhid moo gën a màgg fuuf nga tër nit rendi ko te ku rendi nit ci saayir gis nga àtte bi ku ñu rendi ci baatin nag àtte ba fu muy toll day kawe lool moo tax ba woy ba daanoo ba ba sëriñ ba ma naan laa ilaha illallah moo gën loolu lépp te ku ko di daggan nañu rendi ko Cheikh Moussa ne baat baa ngi noonu moom laa woote ku ma jox sa bopp te bàyyi mag sa bopp mu yóbbu la ci yàlla ba nga yëg ko lii mooy wax bi dafa am lu xew lu sax lu nekk loo xam ne ku nekk war na cee bàyyi xel ndax Cheikh Moussa dafa ñëw moy sang ñaan mi fi tok rek moy Cheikh Bamba ñi nga ba ndax nekul la personne c'est pas la personne mais le personnage manam lamuy doxal yàgg na fi jëm ji yàgg na fi waxu dara am lu mu xam tambalé di wax kon woowu la ci jëmam daf lay wo ci lamu xam lamu xam lolu moy l'islam moy lu bax moy njub moy leer ndax yàlla dafa ne yaa ayu allazina amano yow mi nga xam ne gëm nga sang ñaan nee na ku gëm mooy kuy julli di woor di nat asaka gëm nga yaa ayu allazina amano taqollaaha ragalal yàlla maanaam soo weetee léegi ak soo weetalikoo léegi na boole ko ci waaye wabtaxoo ilayhi al wasila danga mën nga wuti wasila waaye yow miy def loolu yëpp lan mooy sa wasila wajahidu fi sabilihi laallakum tuflihun te Cheikh Bamba bo deglo aya bi la mujjé laallakum la wax tuflihun manam dafa am probabilité bu fa né ak ku bax di di di def lu bax rek ku am yeen rek ñaanal ko lu subare ndax li su bari won rek mbir mi soti cant nak bari na waye ne la kay ma jox la li nga xamné mom la serigne touba daan jox mag ni manam euh, bagage serigne touba si bagage yi baax na torop dalam baax na nangam baax nangam baax bo demee ci ci ci yonent bi da nga fekk ñu photo lepp kalam mbaxanem nangam lepp baxna waye amna amna lenen de yaram amna lu gën de eh, abou lahab jàkkaarloo na yonent bi gis ko mu gis ko xam nga nga gis ku yonent bi ne mu ngi biral janna gént rek abou lahab gis na yonent bi ci jakarlo mu ngi sawara mo jité sawara fi <laughs> waaw gis na yére yi hein eh? gis na yëre yi gis na dàll yi de nga dégg ko wax ne yonent bi euh, di tagg yonent bi ci baas moo gàddaaye màkka jëm Médine yonent bi kaalamba nangam ñu ne ko ki ko génnee nag ki ko génnee màkka am na ko ne moo ko génnee xam nga yow da ngay woy génne gi rek ki ko génnee mi ngi taxaw moom moo ko génnee suñu jaar jaar daal dañu danaa wax ni su ko ko am. abonné wu seen YouTube bu Ndiamé TV bësal notification bi ñu tàmbal nga mën a abonné ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.